Samagal TV mbokk internet euh, ñu ngi fi ci salon jeprok bu Louga macha allah ñu ngi ci foire bu am solo taxay ma taxaw champion bo xam dina ñëw léegi wax moy kan kilifa gi na la. Euh, fay nañ la bu baax a baax a baax. tur bi. Omar Mbodj la. Omar Mbodj bergerie. Touba Afia. Touba Afia. Uh-huh. Euh, kañ la nekk ci élevage bi. Euh, élevage bi nag xaw nañ ci yàgg tuuti. Uh-huh. xam naa mën naa wax di buñ ci amul dix ans it li ko manqué bëriwul uh-huh. yàgg nañ ci waaw. ñu eh, ngi doog ci wàllum laadum bi. laadum bi waaw waaw waaye xam nañ ci yàgg na waaw. ok kon da ngeen newoon ci xaru tabaski wala. waaw nekkoon nañ ci yeneen xari lu mel ne yar eh, beneen élevage mu yar ay pigeon. Mhm. ak eh, xari ordinaire. Mhm. gannaaw gi nag ci lañ dugg ci dugg si ci laadum bi. macha mhm. allah. loolu ci ban at la laadum bi ñaata at. waaw laadum bi moom bi ñu ko commencé comme li ma la wax rek mën nañu wax ne ay sept yooyu si la war a toll waaw. ndax ngeen Euh, bi mooy sama deuxième fois ma génn. Euh, benn bi Saint-Louis ak fii nii. Saint-Louis bi passé. waaw ah, bi passé waaw. génnoon nañu génnoon nañu waaw. Euh, léegi sept yi lan nga gis ci différence bi yi nga njëkk a yar xar yi nga njëkk a yar ak laadum bi est-ce que am na différence. waaw am na différence ndax bi ma commencé comme ni ma la waxee rek sama njaatige xaar Xaadim Saw. waaw moom moo ma njëkk joxaat xar wax dëgg yàlla. commencé woon nañu après ma arrêté woon am ci yu ma nekk ñëwaat bi ma ñëwee mooy moo ma joxoon benn femelle. ci lañ ci lañ ci lañ commencé waat mën naa wax ni xëy na li si gétt gi lépp Euh, foofu la doore daal. waaw waaw. tey euh, loo ma indil. tey waaw man maa ngi indi maal bi ñu koy wax yangaan di doomu Latir Latir Cissé. Mhm. Euh, di doomu Zalatan ak Isham. bu Ndapar. non Latir bu Modou Kébé te Diagne Modou joxoon ko ko. ok muy surtout Isham la daal. ok macha allah mm. moom fu mu yaa foo ko la wala. non waaw dama ko jëndoon ci Modou Kébé waaw. moom ñaata mois. mi ngi am 30 mois moom. 30 mois 30 mois. Uh-huh. ba nga koy jënd ñaata mois la. bi ma koy jënd 12 mois la amoon. 12 mois 12 la amoon. liggéeyal na loola. waaw liggéeyal na ma wax dëgg yàlla. lu ma liggéeyal na ma liggéeyal ay añal. di génn tamit añoo yoo xam si wax dëgg yàlla mosuñoo taxaw sama kër ba am fa six mois hmm. wax dëgg yàlla boo xoolee géniteur daal wax dëgg yàlla hmm. comme ni ma la waxee sama kër boo fa demee doo fekk euh, xaru góor noonu góor am fa moom hmm. ay jigéen daal laa fi am te yi ma fi téye yëpp man la neex ma téye ko wax dëgg yàlla waaw yi ñu ngi nii tey indi naa fi ñetti ñetti yoo xam si ni ay doomam lan bu ñuul bi taxaw doomam la ah. euh, bu blanc bi aussi tamit doomam waaw ak bu ndaw bi ak bu kii tamit doomam la kii doomam la waaw mu nekk ñetti doomam famille bu ñuul bi nga mu ànd ak la borom bi moom mooy ndawa moom it di setu ba setu bayla taw bayla moom moo ko jur macha allah muy tamit setu muy setu Picasso ba tey ok bu dee si côté yaayam jëwriñ moom mooy macha allah waaw waaw mais añal bu ñuul bi rafet na de doom doomu doomu ñu dugg nga ni kii kii yangaan ni kii yangaan doomam bi ñaata mois lam doom ji moom mi ngi dugg trois mois ah moom ak ay seex waaw. kii gars yi laaj ñu ko waaw waaw ñu ko fiy laaj wax dëgg yàlla bëri na ah. trop trop trop trop. kii éleveurs yu mag ko gisee waaw ci suba rek na éleveurs yu mag yi fi taxaw wax dëgg yàlla. lu leer laa wax kii. waaw du ma tudd seen tur waaye wax dëgg yàlla am na éleveurs yu mag yi fi taxaw. la boo toogul say tànk du ñibbi laa Wah, bagaimana menyibuat, deh? tanya de ada yaakaar Ya kan, kok? Wow, insya allah. ndax bari doole de. boo leen ko joxee da nga koy wëriwaat rek te du mënoo koo am. loolu de gars yi Ya, kau ya kau rumah kau de. yaakaaruma ko de <laughs> eh, waaw eh. yaakaaruma ko de. kon dina insya allah. Mereka pasien, pasien Paa Sène de Paa Sène nama ma jaayuma. ma ñëw Lubari ah kira de moom lu fi waaye tegi du ko fi jëlee de. rafet waaw waaw. Ah, nga nan. moom moo tudd rafet na de. waaw allah keneen ki rek borom teg bu ñuul bi. keneen tamit yoon wi laa ko tuddee. yoon wi yoon wi waaw ndax ñoom bi judd dafa fekk ñu war a dem Poroxaan. Ah. ma tuddee ko yoonu ñaar rek. ah ñu Aisyah ay seex lañ. Aisyah. ñaar ay seex eh, lañ. tey ma ni ma bi ci ah masya allah ñoom ñaar ay seex lañ an seen yaay moom moo nekk nii. seen yaay moo toog nii. moom moo taxaw nii. ok macha allah téye ko noonu voilà kii ah, moom mooy seen yaay moom ngeen teg ci maal bi seexi juddu. ma seexi noonu macha allah. mais grand exposition bi rafet naa. Ah. ah merci beaucoup kan moo kan moom moo ko ak moom sëtu réew moo ko jur. ak ban femelle. setu réew mi moom it nekk fi. ñëw waaw benn doomu réew mi moom moo ko jur moom ñëwul dama koo jox. mais champion. waaw exposition bi rafet na. ah merci beaucoup merci beaucoup. kii moom it wax dëgg yàlla moom laa dugal ci concours aññan. moom qualifié na waaw doomu maal bi la. waaw doomu maal bi la maal bi daal. qualifié na ñëw na fi indi ay doomam yi laa xam ci maal. waaw ah, waaw rafet na. dugal ko frigo maal bi. waaw dugal naa ko tamit. ah oui dugal naa ko dugal naa ko waaw. ah oui oui il est très bon. dugal naa ko ngeen ñaan rek mu ah. qualifié moom. ah non non il est beau. Ah, waaw merci beaucoup. non xalaatoon naa ko merci. ok euh, jërëjëf waaw ma numéro bi adresse. 77 euh, la. 448 67 56 Omar Mbodj. macha allah bergerie Touba Afia. jaajëf waaw jaajëf. thank you